daan dox bu kii guddi rek lañu daan dox waaye léegi xamituñu suba ngoon guddi ak bëccëg bu kii guddi rek lañu daan dox nag bu dee bëccëg lañu nga yem daan dox bu kii guddi rek lañu daan dox waaye léegi xamituñu suba ngoon guddi ak bëccëg Just to nokki naa looyam kes baax encore une fois ñu am contactement am fierté euh, di ànd ak yéen euh, fii ci euh, foire bi yaakaar naa ni suma jumul ñu ngi ci trentième foire bi nga xam ni ñu ngi koy organiser boobu ba tey xam nga nag trente ans moom boo ci dindee sama at yaa may wecci parce que man vingt deux ans rek la am yaakaar naa ni boo dindee samay at trente ans di nga ma delloo huit ans yoo xam ni tarkalla maa ko moom mooy comme rek bu ñuy def devoir en classe nga am ay notes yu baax lu ëpp dix dañ naan la ay notes yoo xam ni euh, plus beneen. départ bi war a ñëw donc xam naa ni foire dina dem ba ay trente huitième euh, foire yooyu pour ma pour ma mën a méngoog samay at man jaw xale la dama teel a sob rek teel a dooj wallaay vingt deux ans tarkalla bi ma ko amee léegi yàggul doom yi ñu may jiiñ yëpp samay doom yi mag lañ waaw pour <laughs> pour mu leer leen en tout cas ñu ngi kontaan bu baax ci teew bi nga xam ni ci la ñu teewaat ci foire bi euh, man nag euh, ma nekk koo xam ni dañ ma dama naan dañu maa yàq ah man dafa neex ci man lool lool lool ci ni may présenté plateau ndax dafay am ñaari xale astafurlah ñaari mag ñoo xam ni ne tarkalla dañu lay séq séq la nañ la war a séqee jaw maa ngi lay kontaanee bu baax a baax a baax c'est encore un plaisir ah di ànd ak yow xam naa ni c'est partagé même si c'est pas partagé c'est un plaisir Guèye mi nga xamante ne moom laa bokkal plateau bi ak di nuyu bépp mbëkk téléspectateur yi ngi xamante ne ñi ngi jàkkaarloo ak li di seen télé préféré mu di la télévision Futur Média comme ni nga ko waxee rek Abba ñi ngi ci 30e édition bi ñu naan la foire de Dakar ñu gën ko xamee ci FIDAK at bu soob muy ama rew nag tàmbali na ci li nga xamante ne moom moo di depuis le 15 te dinañ ci dem ba incha allah le 31 décembre comme ni ñu koy defee saa waaye min nañ ko saa yu demee ba ci biir da ngay gis ñi nga xamante ne moom moo di exposants yi dañuy sàkk ñu yokkal leen ndax li ñu gisee seen bopp ci lu ne mel boo paree rek après ñu gën a xuus jaw xaw ma ndax préparé nga ko am déet mais dinaa la laaj li sabab lu li nga xam ne moom mooy foire bi euh, lan moo ko indi lan moo waral premier édition bi fan la idée bi jóge loolu yëpp xaw ma ndax préparé nga koom am déet waaye xam nga ni abaa moom euh, ci ci ci impro lay dox euh, boo ko préparé mm. mu nekk sa chance boo ko mm. préparé wul Euh, moins cinq. xam nga liñ naan tugg ne du teel duy nataal yëf yi nag dinaa ci coof tuuti waaye borom bés bi nag moom moo mun a fecc feccam ba tax na ñun dinañ ko ñamal waaye teewul comme ni nga ko waxee ci ay plateau yu bare yoo waajal dinañ ci invité ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko sooke ñu gën a waxtaane li nga xamante ne moom moo di. Ah, foire bi moom bés bi tey yow da koy ñamal. waa dama ko ciy ñamal tuuti mu ñëw wax ci bés bi. voilà donc am na solo jaw bul <laughs> fàtte ni euh, foire bi ren dañu ci àndaat ak euh, le groupe Futur donc xam nga ni la TFM ak RFM ak suñu plateforme yooyu nga xam ne dañ ko am yëpp yaakaar naa ni ñaari at a ngi nii ñëwuñu ci foire donc bu ñu dellu see foire foire dina xam ni borom foire euh, ñëwati biir foire ci concert yi ci plateau yi ak ci émission yi nga xam ni moom mooy am fii yëpp ci foire bi ànd ak ki nga xam ni moo yor internet tey bu ñu nee foire les réseaux sociaux l' internet li xew ci biir internet moom euh, li xew biir foire dina ci bari lool mairie bi Euh, Aba maa ngi lay nuyu di nuyu euh, Mado bi nga xamante ne nii ñoo bokk plateau aussi di nuyu téléspectateurs yi di ñu seetaan euh, le samedi matin di leen dalal ci seen plateau Weekend Start donc comme ni ko Aba waxee rek li nekk ci internet bi te mu bees yëpp dinañ leen ñëw jukkil leen ko bu ci kanamee tuuti waxaale aussi li xew ci biir internet bi fii ci biir foire bi. ay ci am na solo donc euh, li ñuy njëkk def mooy jël suñu première invité mais ginnaaw bu ñu seetaanee clip bi nga xam ni Pape Samba daf ñu koy euh, proposé Pape bul fàtte spot yi nga xam ni am nañ ko yëpp ci fin d'année yi ànd ceeg partenaires yi nga xam ne ñoo ñëw ci groupe Futur Média bokk na ci 1er janvier Youssou Ndour bokk na ci 30 euh, décembre ak festival bi nga xam ne xale yi ñoo ko moom ah fiesta xale yi waaye bokk na ci li nga xam ni moom mooy tournée bi artistes yi war a def euh, te ñoom ñëpp ñu ñëw ànd ci ak le groupe Futur Média clip yeeg yooyu yëpp dinañ ko waxtaanee mais dafa am invité boo xam ne dañu ko am cam euh, la sant donc Nafisatu la tudd man cam bi rek dafa seddal sama xol bi mais euh, dafa am loo xam ne bu doon aba non non après nga présenté say gan indi leen bu doon Abba woo ko def wala mu wax ko ñu ne <laughs> il est nul nulaar la jàngam soriwul wala dara si vous me le permettez ma liir ok les soixante dix heures les soixante douze heures de la SICAP. waaw première édition baa ngi nii. Festicap ah. waaw dañ ko tënk yaakaar naa ni def ko NLB ah. voilà ok léegi dañu bind fii NLB euh, service en partenariat avec la mairie de la Sicap Liberté mhm. organise les 72 heures de le Sicap. du yoon faute faute eh, de ah, foofu waaw waaw faute lii de jaww waaw fii faute de frappe. lii de jaww dinaa ci taxaw lu yàgg. <laughs> waaye xam naa. dama képp kil bu ma la ci joxaatee ci leneen. damaa jàpp client. jàpp nga client waaye di nga gën a jàppaat xam nga ndax lan. léegi mm-hmm. da ne NLB. Mm-hmm. laaj ma lu muy tekki lan lay firi. na fi lebal ma business. <laughs> Ah, ba mu sotti <laughs> léegi dañuy seetaan. dañuy seetaan clip euh, ñëw daal di jël suñu ay première invité yi ñuy dem ci invité nga xam ni invité yi nga xam ni ñoom la ñuy àndal ci événement bu mag bi nga xam ni tabarkàlla yaqaa euh, damaa foog ni hip hop nga xam ni moom la ñu am ci réew mi hip hop bi nga xam ni depuis bu ñu juddoo ba tey di ko déglu consommé ko old school yi ba ci no school yi nga xam ni ñoom la ñu bokkal jamono am na événement bu mag buy am ci Sénégal ci hip hop bi donc yaakaar naa ni ci kanam dinañ ci waxtaan daal di ci dugg gën cee yaatal ak promoteur bi ak euh, li nga xam ne mooy acteur yi ñoom ñëpp ñu yaatal ci Pape Samba boo ñu ko mayee ñu xooli clip bi doog a jël suñu ay première invité waxati nga nag Youssouf ginaar dafa soxal daf koy topp di ko cof di ko cof di ko cabaxal ba mu daw e durel jaaduna jaaduna jaaduna adduna sargal leen jaaduna jaaduna B 72 heures de la SICAP de mhm. safra le SICAP euh, ñu ñu ñu war cee doxal ba ci kanam jaw say invité ngi noonu donc foog naa ni mhm. euh, bu fekkee foofu am na kenn ku war a wax fële tamit am na kenn ku war a wax ngeen dalal seen i invité ñu waxtaan ak ñoom quoi effectivement Aba comme ni nga ko waxee donc ñi ngi recevoir ci plateau bi nga xamante ne ñoom ñoo dëgmal euh, les 72 heures de la SICAP ñu xam ne ko nag moom moo nar a nekk la première édition du ñàkk ki nga xamante ne moom moo di Nafi Thiam Nafi Thiam nag moom moo di la directrice de NBL comme ni ma ko waxee sànq Nafi lebel ma business moom la ñu tënk sunu micro mu wax ñu nag ci li nga xamante ne moom moo di bés bi ñu duggeel di euh, ñu waajal mu di les 72 heures de la SICAP maa ngi lay nuyu ma très cher. Euh, maa ngi lay fay maa ngi nuyu aussi Aba euh, di les remercier déjà sur le fait que ngeen accueillir ñu fii euh, donc euh, dañ fi ñëw pour présenter leen le FESTICAP première édition bi les 72 heures de la SICAP ay ñu fi nekk nii ñëpp ay doomu SICAP lañu moi je suis de Liberté 2 y a Liberté 4 Liberté 2 aussi là-bas donc euh, ensemble ñun ñoo ne pourquoi pas créer quelque chose pour suñu commune parce que ba ñuy xale y avait tout le temps des activités euh, culturelles éducatives te léegi koñ yi dafa xaw a gëmm tuuti ñu ne pourquoi pas ñu dekk si luwaat tradition si Kapoise bi du coup si la ñu nekk maintenant en partenariat avec la mairie pour jéem a def les 72 heures de la SICAP première édition bi ñu ñaan yàlla def plusieurs éditions incha allah chaque année. incha allah alors jàpp naa ci fi ne nii ci euh, ñetti fan ngeen koy euh, tënk est-ce que mën nga ñëw ci ñetti fan yi la ak lan moo nar a nekk le programme. incha allah euh, ce sera du 28 au 30 euh, le 30 décembre bii nii euh, le 28 29 et 30 dañ koy aligné ci trois jours yëpp dañuy am euh, benn foire ak forum bu ñuy def si terrain basket Liberté 2 bi si trois jours yëpp so à partir de dix euh, dix heures ci suba ba quinze heures foire ak forum la léegi soiru 28 bi dañuy am benn carnaval boo xamante ni dañuy am itinéraire de Liberté 1 score Liberté 1 jusqu'à Liberté 6 extension côté Etika bi ah waaw dañuy ñëw incha allah léegi nga xam ne dañuy ànd ak euh, toute la culture euh, sikapoise asiko yeeg culture capverdienne beeg ethnie yëpp ci biir. waaw man kay dama doon xaar loolu parce que man sax am na fu ma leen doon xaar pour man foofu mooy euh, seen terminus mais dafa mel ni ñoom dañoo bari ay arrêt am na culture capverdienne bi day ñëw mais dama cee gisoon élection Miss ma doon xaar Miss bi rek ngeen dénk ma ko <laughs> ma jël ko deuxième <laughs> eh, mais ngeen dimbale ñu rek waa Cap Vert ñu waxtaan ak ñoom. Mm. on veut Cap Vert mais pas Brésil quand <laughs> ayca <laughs> yeggal ci programme bi. léegi bu ñu defee suñu carnaval ba pare soiru 29 bi ñu ngi bëgg pour décentraliser tuuti yëf yi si kàppaay yëpp gis ci seen seen bopp dañu jël kermesse bi ak concert bi yóbbu ko terrain Liberté 4 foofu la ñuy defee kermesse beeg concert bi euh, soiru le 30 bi si la ñuy am dîner de gala bu mag boo xamante ni dañuy convier tous les ci Sikapois et personnes ressources de la commune. incha allah boobu nag dina de gala bi ñu ngi koy defee ci terrain basket Liberté 2 bi en face de la pharmacie côté école Sacré-Cœur bi noonu foofu lañ koy defee mais entre temps nag ci diggante bi xam nga dara moom boo xasee ba commencé ko rek ku nekk day bëgg ñëw apporter benn touche du coup puisque Euh, sóoraale wu ñu woon trop l'aspect sportif puisque dañ ne dina dinañ am carnaval après booy yu ñëw casse quoi ne léegi. ak Sicap ni mu bëree ay sportif. voilà quand même. donc euh, forcé ils nous ont forcé ne par la force dina am euh, volet sportif bi ci ko loolu ñu wax ak monsieur Lam moom mi nga xam ne moo ñu defal terrain de football liberté 6 bi. voilà baaxkat bi tooroodo bi. voilà bëgg liberté. dëgg la dëkk 1 ba 6 moom xàmmewul fan la ci juddoo. dëgg la rek a ko ñor donc euh, vraiment bu defee terrain boobu wax nañ ko waxaat ko waxaat ko bu ñëwee dimbali leen ci 60. 12 heures bi lu war la quand même. léegi dañu ciy profité pour inaugurer terrain Liberté 6 bi donc on donne ça un petit tournoi aux académies et de la SICAP bu ko defee ñoom ñu def benn tournoi de foot inauguré waale terrain de de football bu Liberté 6 bu le 27 incha allah mooy nekk programme de lancement. FESTICAP bi. en tout cas am na solo donc xam naa ni euh, programme bi riche na 72 heures yi damay wax yeneen koñ yi ñu roy ci SICAP. Euh, ah vraiment li activité la mais hommage bi nga xam dañ ciy def. di mm. sargal ay doomu SICAP. Sicap ñi am jom am fulla am fayda ba pare concert utiliser culture bi nga xam ni moo nekk biir Sicap artistes yi nga xam ni ñoo nekk biir Sicap xam nga aspect yi ci nekk yëpp dafa bari ay mhm. volet culturel éducatif xam nga